mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak ñun ci leeral TV juróom-ñetti waxtu jot nañu dikk ci xibaar yi. li gën a ci boppu xabaar yi maître Sidiki Kaba moom mi ñu denk biir réew mi di ministre de l' àdduna lu jëm rek ci ñaareelu fan bi ñu jàpp muy weeru juin atub 2024 ngir mën a amal élection présidentielle fii ci diwaanu Sénégal muy loo xamante ne bi waxtaane nañu ko ba daal di koy proposé ca dialogue national ba doon amal ca diwaanu Diamniadio àdduna ci ak li nga xamante ne bi rek moo laxasu ca biir boobu boobule dat dina ko faram-fàccee ci jotaayu xabaar yi dinañu àddu itam ci li nga xamante ne bi rek moo soxal màngaan gi nga xamante ne bi rek jaarul ci yoon di immigration clandestine loole nag war nañ cee mën a def ab ngir mën koo xeex ci diwaanu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ne bàyyeekoo na ci Boubacar Seye Seye njiitalug ONG Horizon Sans Frontières moom itam jàpp na ne euh, daal war nañu amal waxtaan diggante askan wi ak itam ñi nga xamante bi rek ñoo euh, di faat ay bakkan ba tey jamono jile dinañu àddu mbokk yi ci jotaayu xabaar yi ak université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñi nga xamante ne bi rek dañoo nekkoon doon xalaat wala itam di jéem a def lépp lu yàq deruk boobu lay daara ju kawe daanaka ñoom ñëpp nag dañoo lajji du samay kàddu kii di Cheikh Oumar euh, kii di Euh, njàng mi ci biir réew mi moo ko xamle gannaaw ba ñu doon janook du xabaar ni ki tey jii dinañ ko teewlu ci jotaayu xabaar yi ak kaddu yi nga xamante ne bi rek yëkkati na ko doon dikkaat ci kaddu yi bàyyeekoo ci recteur bu COUD di am Ahmadou Ali mbay xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram mbokk yi moo fas yéene buur bi la jotaay bu bàkk ba daanoo ñu tàmbalee faram fàcce gi sant nañu leen gërëm leen mbokk li safa di bàyyi xel leeral TV xibaar yi ci tënk la koy tàmbalee ak ñi nga xamante bi rek ay attekat lañu fare ci wàllug ko e ne diggandoo ni ki dooree ah, tey jii di alxames yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février daanaka rek dañoo daal di tàmbali ab grève boo xamante ni bi rek dinañu ko amal ba ëllëg ci ah, benn fan ci weeru ko ah, lii di weeru mars atum 2024 li ko waral rek moom mooy la ñuy sàkk moom mooy ñu généraliser lépp lu ñu dippee a ci li nga xamante ni bi rek moo ñeel bépp greffier euh, bu nekk fii ci diwaanu euh, Sénégal wante itam ñu ngay wax rek ne bëgg nañu daal euh, loole kii di ministre bi ñu dénk wàllu justice daal di ciy taxaw ñoom ñi bokk ci site nag daanaka li ñuy bëgg itam wala li ñuy ñaawlu bokk na ci sabotage li ñu duppee nee nañu rek am na ci seen réforme jëm ci statut de fonctionnaire bu faree ci wàllu justice ñoom nag li ñuy sàkku ci galaba ba tey bokk na ci loolee itam di wax itam ni seen bile réew daañu bëgg fii lekk amul nag daañu wéyal di amali yëngal saa euh, su nekk xibaar yi mbokk yi dañuy daal di àddu comme dama leen ko junjee ca bopp bi tey ji la doon janoog taskatu xabaar yi moom maître Sidiki Kaba di ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi àdduna rek lu jëm ci élection présidentielle yi nga xamante ne bi war nañ koo amal wala itam jàpp nañu ab date di war ko waxtaanee xool ndaxam dañu ko ci amalam déet moom Sidiki Kaba daanaka ci boobule dajeeg taskatu xabaar yi jot naa xamle itam lu bàyyeekoo ne bi na tukkee ci conseil constitutionnel gannaaw waxtaan yi nga xamante ne rek amal ko ci dialogue boobu leen problème bi il faut ñu jëbalu ko conseil constitutionnel ndax conseil constitutionnel moo war a interpréter situation juridique bi ñu nekk ndax constitution tamit nee na ku fi gaañ mar détail ku fi démissionné mais ci kaw loolu loolu il faut que date bi ñu fixé ko ci kaw yoon te l'article 80 de suñu constitution l'article 80 du code électoral l'article pardon l'article 137 LO 137 dafa préciser pour ñu organiser ko il faut que lu toll 80 jours am diggante date bi bi ñuy jëlee c'est-à-dire pour ñu convoquer corps électoral. moom ministre de l'intérieur. daal dina profiter ci jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi. ngir indi ay leeral lu jëm ci loi d'amnistie bi nga xamante ne ñu bëri ci sénégalais yi comprendre ñu ko. suñu constitution. article 47. moo may président de la république mu mën a gracier maanoom mooy baal ki nga xam ne dañ ko atte ba atte bi jeex parce que dafa jalgati yoon yoon bi yoon bi dal ci kawam léegi moom su fekkente ne ñeenti at lañ ko condamné mu def ñaari at mu baal ko pour que les deux autres années mu def ko libre loolu mooy droit de grâce amnistie président du amnistier amnistie assemblée moo am pouvoir boobu assemblée moo am compétence amnistie assemblée moo mun a jël dogal bi nga xam ne à travers une loi pour dire am na ay xew-xew yi nga xam ne amoon na ci réew mi baal nañu ñi nga xam ne def nañu. conclusion yi ak recommandation yi nga xamante ne amal nañ ko ci jaloog bi weesu fas yéene nañ ko jébbal président Macky Sall lundi ñeenti fan ci weeru mars. jërëjëf Angelina Gomes dañuy desandi ba tey ci loole ndaxte ministre de l'intérieur àdduna ne ñaari fan bi ñu jàpp ci weeru juin mooy date bi gën a gàtt ci li nga xamante ni bi rek daanaka noonee la ko conseil constitutionnel euh, bëggee moom maître ministre de l'intérieur daanaka rek jot na itam addu ci ne conclusion yi nga xamante ne bi rek dinañ ko amal gannaaw waxtaan ni ñu amaloon niki altine ak àllarba ci diwaanu fële nga xamante ne bi moom moo di euh, Diamniadio ci conseil wala dialogue national bañ fa doon amee bu tukkee itam dinañu fexee rek lépp loo xamante ne ñeel na élection yi mën ko amal ci euh, jamono joo xamante bi njort nañu ne euh, am na nu muy demee rek réewum Sénégal dina am yëngu-yëngu yoo xamante bi rek daanaka kenn du ko xalaatee noonu ñu teewlu ko moom maître Sidiki Kaba ba tey ci micro Angela Gomis ko conseil constitutionnel ndax conseil constitutionnel moo war a interpréter situation juridique bi ñu nekk ndax constitution tamit nee na ku fi gaañ mar détaali ku fi démissionné ou ku am empêchement c'est-à-dire am feebar bi nga xam ne munul def liggéeyam ci cas yooyu ñetti cas yi président de l'Assemblée nationale moom moo war a jiitee réew mi su ko defee il faut ñu préciser leen ñu leeral leneen moom dafa war a organiser ci ñaari weer soixante jours ou quatre jours ñetti weer élection bi. ma leeral leen tamit loolu su amee processus bi yépp la ñuy recommencer. donc les dix-neuf kenn amatul droit ku bëgg a nekk candidat mën nga nekk candidat ñu jéem a seetaat. ci parrainage yi ak yeneen parrainage yi ba ci vote bi ki nga xam ne ñu xaar ko ba peuple sénégalais askan bi fal mu nekk président de la république nag bi ñuy examiner situation boobul ni ne dinañ ñaan ci njëkk ak teranga président de la république Macky Sall mu nangu toog su fekkente ne conseil constitutionnel nee na ci article 36 2 war toog boo ñu joxantee léngee moom ak ku askan bi fal loolu mooy situation bi di leen préciser tamit que lu ma leen wax yépp recommandation la c'est-à-dire dialogue bi seen xalaat mu ngi noonu ministre de l'intérieur Sidiki Kaba daanaka rek waxtaanam googule lu am solo la itam di ngeen ko teelu ci nu mu gën a yaatoo gannaaw xibaar yi ci kàllaamay nasaraan dañu àddu mbokk ci xibaar boo xamante ni ba tey wàllum politique la ak lu soxal euh, dialogue national bi ñu doon amal ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bii ñu nekk ca jam ñaajo loolee nag daanaka gannaaw ba mu sottee itam aar sunu moomeel aar sunu élection ñu baal ma comme ñoom itam fëstal lu ñu ab bataaxal jàpp ne ñoom dinañu def lépp lu ñu mën boole seen doole ngir bu ko defee ñu mën a respecter calendrier électoral bi wante itam fexe ba kenn du salfaañe dooleek conseil constitutionnel Ibrahima Khalil Diémé dikkat na ci boobule communiqué. ñu amalee dialogue national mi ñu amaloon ñaar fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 plateforme aar suñu élection gannaaw ba dégluwee déclaration njiitu réew Macky Sall ci njano boobule taxaw tem it di am mbetteel ci li nga xamante ne loolu la Macky Sall wax gannaaw ba ñu gisee ni njiitu réew Macky Sall dafa lank ngir respecter calendrier républicain ak légalité constitutionnelle bi ci situation bi mel bi nga xamante ne ñoom jàpp nañu ni dina dugal réewu Sénégal ci instabilité sociale plateforme aar suñu élection décidé boole seeni doole di xeex lépp lu jëm ci wàllum coup d'état bi nga xamante ne moom la ñu jàpp ni Macky Sall moom lay orchestré ci loole nag la daal di décidé boole entité yi nga xamante ne ñoo ŋànk aar suñu élection boobule li ko dale ci front bu candidat élection présidentielle yu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 force vive bu Sénégal F24 waaye front pour la défense de la démocratie ngir mën a renforcer xeex bi jëmale ko ci ne ngir ñu amal élection laata ñi dem si ñaari fan ci weeru avril atum 2024 jërëjëf Ibrahima Khalil Diémé kon ci wàllum politique bi la war nañ cee mën a porox ndoll ngir bu ko defee lépp lu jëm ci màngaan gu jaarul ci yoon ñu mën cee indi saafara du samay kàddu kii di euh, Boubacar Seye di euh, président bu ONG euh, Horizon Sans Frontières moom moo ko xamle ndaxte jàpp na ne màngaan gi ni muy def di faat ay bakkan ci diwaanu Sénégal bëri na ba ca mujju démb la woon ca diwaanu ndargee ci ñu teewluy kàddoom ndaxte jàpp na ne war nañoo waxtaan diggante askan wi ak itam état bu Sénégal ngir indi ci ay saafara ñu teewlu ko ak Angelina Gomis lekkutuñu nit ñi naanatuñu nit ñi fajootuñu njàng bi doxul dara doxul nit ñi amatuñu espoir ni dëkk bii mën nañ fay vivre avec l'inflation Dakar nekk capitale bi gën a cher ci Afrique même la ville de Dakar la moo gën a cher les pays européens mais nit ñi mënuñu tenir c'est pas possible amatuñu yaakaar ni dëkk bi mën nañ fi dund pour saafara ko nag damay jàpp ni la boussole le seul cahier de charge moo ñu orienter les perspectives de solution vers la sécurité humaine doomu aadama nu ngi koy aaree sur tous nan la ñuy fexee ba déblayer les obstacles liés à l'incertitude ak ni li ko lal mooy l'insécurité alimentaire nit ki su xiifee lekk su maree naan l'insécurité économique nit ki mën a liggéey mën a am un logement décent mën a faju l'insécurité sanitaire mën a faju gis nga Covid bi rek problème yi fi indi l'insécurité individuelle hein les persécutions yooyu yëpp tey dafa dellu siwaat nekk facteur de propension et tant qu'on ne règle pas le problème sous cet angle-là parce que la cause est multisectorielle multidimensionnelle fépp ay métti foo laal foo laal ñooñu jàmbat la pêche l'artisanat da ngay gis sax tey dafa feeñ sax ci profil ñii di liggéey sax ñu ngi bàyyi seen liggéey di daw kon foofu la dëkk bi toll pour ñu saafa ko rek il faut waxtaan am il faut dialogue national am sur la question il faut que l'État mu jël ses responsabilités pour rétablir l'espoir au niveau des populations sinon rek alors euh, nous allons vers d'autres drames encore et nit ñi kenn mënu leen tey tant qu'on n'a pas toutes les craintes et incertitudes liées à la sécurité mu ngi noonu kon ci magaan googee lañuy ñu daal di àddu ndaxte xam ngeen ko démb ci ngoon xibaara bu tiis boo xamante ni bi rek moom la ñuy fanaanoo muy ay doomi aadama yu bari ba weesu ñaar fukk ci ñoo xamante ni bi rek dañoo nekkoon cib gaal daal di euh, faatu ci Euh, géej gi ca diwaanu ndar géej ñu faral leen ca tefes gi loolee di jëye joo xamante ne bi jamono ji mu ngay euh, jooyloo ñu bëri ba tey ci diwaanu Sénégal rawatina ca ndar géej fii ci diwaanu Dakar itam askanuk Sénégal waxtaan nañ ci rek ak ñoom ngir ñu xool seen xalaat ci mbir mi wante itam nees la ñu mën a def ngir man ci indib saafara waxtaan nañ nag ba indi ab proposition dénk ko suñub ndaw Ramata Sarr ak Aïta Ndoye ñu teru leen na gis nga affaire gaal gi ñu bëgg a dem dañoo bëri yàlla xam na ko fi mu toll nii nguur gi bu defoon li ko barki alxuraan ñuy génn di dem nii dafa metti mais nag nu ñuy def parce que dëkk bee metti jeunes yi seen pexe moo jeex rek amatuñ yaakaar ci dëkk bi léegi nag nit ki boo nekkee ci dëkk bi ba amatoo ci yaakaar da xool li nga xamante ni moom mooy solution bi mais xam nga dëkk bi li fi nekk kenn mënu ko wax dafa metti soxna si dëkk dafa metti balaa nga ko nga gën dem ci banlieue bi ma dëkk man maa ngi dëkk Pikine guy faatu may nga fa laa dëkk mais balaa nga xam ne dëkk boo metti nga dugg fa boo fu duggee da ngay xam ne lii non mosoo xam ne lii nit da ngi dund lii ah jeunes yi kañ lañ gënaat ndekki ndekki amatul ci dëkk bi boo duggee ci biir kër yi reer amatul reer moom amatul. solution bi mooy nguur gi jéem a sampat fii maanaam defaraat maanaam wàññi wàññi taxi yi yaa ngi dégg jéem a def fii ay emploi maanaam ubbi ay usines yoo xam te ne gars yi a liggéey ñu ñoo ngi nii ay ouvrier lañ menuisier lañ suñu métier mën nañ ko lool macha allah mais tey lal ba nga daan defaree tey benn. benn maanaam cinq cent mille six cent mille xoolal nit ki bu la ko naree fay dem jënd ko ci importé moo ko gënal jërëjëf euh, Ramata Sarr mi taataan kàddu askan woowu la ca diwaanu Castor fi ci diwaanu Ndakaaru ci tënk itam ba tey ci loolee la ñuy wax ba tey ci diwaanu Ndar géej ci li fa am euh, gis ngeen ko loolee rek nekk loo xamante ne bi daanaka euh, jur na jëye ju méttee métti wante gouvernement bu Sénégal ak délégation bu am doole boo xamante ne itam war nañ faa dem ñu ngi fa sax jamono ji suñu ndaw di Adama Sall moo ñu jottali xibaar boobu la ngeen di seen di image yooyu yi nga xamante ne bi gis ngeen ci mbooloo mu takkoo takku lépp rek ngir mën a saytu mbir ma mu demee ci bët gànnaaru réewum Sénégal jamono ji nag lu ñu mën a wax rek rek moom mooy bilan ba euh, ci ñi faatu daanaka dafa yokk sax tey ci suba jot ñoo am na ñaar ñoo xamante ni leen ci tefes ga lim nga nag ji mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ci ñu faatu ci géej ga foofee euh, ca diwaanu ndar géej ñaar fukk ak benn di ay rescapé maanaam ñoo xamante ne bi rek jot nañoo génnaale ak seen bakkan jamono ji ñu ngay wër li nga xamante ne bi rek ñoo des ca 327 euh, ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ca gaal ga ndax dañoo deewoom dañoo daw lépp rek da ngeen ko am ci nu mu gën a yaatu ak suñu ndaw bi ñu nekkal ca diwaanu Saint-Louis di Adama Adama Sall mbokk yi xibaar dañuy wéyandi ba tey daal di àddu rek lu jëm ci li nga xamante ne bi moo soxal eh, eh, université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñi nga xamante ne bi rek dañoo bëggoon a yàq deru boobu la eh, daara ju kawe daanaka jamono ji dañoo lajji du samay kàddu kii di Moussa di jëroon bi ñu wàllu ko éducation supérieure moom enseignement supérieur moom moo ko xamle jàpp na ni itam kàddu yi nga xamante ni bi rek moo bàyyeekoo ci recteur bu COUD di Amadou Ali Mbaye daanaka nekk na loo xamante ni jar na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ñu teewlu ci suñu ndaw Ramata saar ak Aïta Ndoye ci yaatal salaam. daara ju kawe ji ñu duppee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moo ngi sokkaliku bu baax ginnaaw yangu-yangu yi fi amoon li ni mel nekk kàddu jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ci visit bi mu amaloon ci biir daara bile. parce que gis nañ ni euh, naam jàng bi dafa doon woy mais euh, ci xarale yu bees yi lañ ko doon jaaral te ñu ngi aussi félicité waa ICAT parce que. léegi wane nañ ne ICAT am na jumtuwaay boo xam ne bu ñu amee problème euh, loolu du tax euh, maanaam njàng bi mu mu arrêté donc bu ñu wéyalee enseignant euh, njàng bi ci xarale yu bees yi ñëpp doon sàkku pour ñu ñëwaat parce que xam ngeen université quand même li gën mooy ñu ñëpp étudiants yi ak prof yi ñu daje fii loolu mooy maanaam dundin université bi ñuy gën a nàmm. donte sax am na lu bari liñ ci war a yokku ñu ngi fa nemmeeku ab yokkute. bu am solo. boo xoolee li nga xamante ne moom lañ am léegi ay salles fonctionnelles daanaka ëpp na li nga xamante ne moo fi nekkoon ndaxte bi yàq-yàq yi di am am na ay chantier yoo xam ne noppil woon mais ak ak ak fermeture bi en présentiel euh, jot nañu def euh, ay progrès yu important ci diir bu yàggul dara université Cheikh Anta Diop dina am lu mat ñaari fukk junni lal bu amee dinañ am aussi ay restaurant yoo xam ne war nañu mun a joxe maanaam ay euh, añ pour euh, soixante dix mille étudiants loolu aussi jéego yu rëy la. UCAD euh, mu ngi fu mu nekkoon ñi ko bëggoon yàq di woy ñooñu moom ñoom ñoo perte. ànd ak délégation bu am solo jëwriñ bi ñu dénk wàllum njàng mu kayu mi mu ngi xamle ni rek université Cheikh Anta Diop bokk ci université yu gën a mag fi ci Afrique mënuñu ko salfaañe noonu moo ngi xamle ni tamit dinañu wëyal progrès yi jërëjëf Ramata saar dañuy àddu lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak lu ñu duppee jàngoro yi nga xamante ni bi rek daanaka jafe na ñu gis ko muy les maladies rares xam ngeen ko journée mondiale bi rek dañ ko waroon amal wante dañu ko toxal ba jëmmi jamono wees wut itam ñi nga xamante ne bi ñoo fare ci ab kuréel ñu duppee ko euh, taxawuma assistance handicap amal ab ndaje ca màngaanu ministère de la santé ngir waxtaan bu yaatu ci mbir mi wante itam ñaax askan wi ci nees la ñu mën a def ngir mën a mucc ci jàngoro yi nga xamante ne bi jafe na ñu daal di koy mën a gis bu ñu sukkandikoo ci euh, ki nga xamante ni bi rek moo di Mamadou Moustapha Diop di directeur des maladies àdduna ne euh, jamono ji nag euh, ñu ngi def ay pexe ngir mën cee mucc ñu teew teewlu ko ak Cheikh Tidiane Sène aujourd'hui sunu mëbët ñu ministère de la santé mooy def lu ñuy wax couverture sanitaire universelle loolu nag mu ñu ko def te bàyyiwuñu xel feebaru maladie rare alors maladie rare yooyu nag boo ko seetee war nañ ëpp juróom-ñaari junni feebar yoo xam ni dañ leen boole ci maladie mën nañ ci boole drépanocytose mën nañ ci boole hémophilie mën nañ ci boole maladie yi nga xam ni ay maladie neurologique la maanaam day jàpp sidit dañ nag ay xeetu feebar yoo xam ni day topp ndono amuñu vaccin waaye nag am nañu ay conseil prénuptial am nañu ay euh, dépistage néonatal loolu ministère de la santé ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax tey jii am nañu ay direction ak i division mais également am nañu li ñuy wax plan stratégique boo xam ne dañ ko jagleel les maladies rares mu ngi noonu mbokk yi dañu àddu ci leneen wax ci li nga xamante ni bi rek moo ñeel ville bu ndakaaru daal di engagé wu jëm ci xeex lu ñuy duppee coppite ak jaww ji loole nag daanaka dinañu ko jaarale ci participation bu yaatu boo xamante ne bi ñii di bokk ci convention des maire en Afrique subsaharienne ñoom ñoo ko euh, fas yéene euh, sëkk bu ko defee rek ñu mën koo xeex wante itam dinañu amal ab subvention boo xamante ne bi rek dinañ ko dugal ci xeex bi ndaxte euh, mairie bu nekkee ci daanaka ci mairie dinañu fexe rek amali action lépp rek ngir mën a xeex lii di coppiteeg jaww ji ak projet bu am solo buñ ci fas yéene dugal ndaxte gis nañu sax ay waxtaan yoo xamante ne bi dinañu ko amal ay lël ngir mën koo gën a yaatal ci département bu pikin Dakar Rufisque wante itam ca diwaanu Kër Massar ñu teewlu ci euh, kii di Ndiaye euh, Jules Louis moom mooy adjoint au maire bu Ndakaaru ci micro Marina ak Ran Laye tey pour ubbi atelier bi nga xam ne ci intercommunalité lañ ko jagleel. pour xeex loo xam ne moom moo moo ñuy dal moom mooy le changement climatique. donc ñun suñu xeex moom mooy mën a boole euh, ville yëpp nga xam ne ñu ngi ci région de Dakar bi ñu ñu nekk benn àndandoo mën a teg. benn calendrier boo xam ne ak ay projet yoo xam ne dinañ mun saytu ay financement yoo xam ne dinañ teg ñu mun ko réaliser ndax euh, wàññi coono population yi ci changement ci effet changement climatique bi soo xoolee ndox mi déjà lu muy lu muy dugg ci suuf si lu muy jël ci kër yi bëri na euh, yàq-yàq bi bëri na donc yàq-yàq boobu gëm nañu ne suñ ko wàññee ci askan bi dina am benn benn effet favorable boo xam ne dina baax ci askan kadak tey ñëwul pour euh, wax priorité ville yi ville yi si boppam ñoo def benn liggéey boo xamante ni ëpp na cinq ans ñuy liggéey si problème climatique yi donc tey ñoom seen bopp ñoo ne euh, avancée de la mer bi ak jafe-jafe yi mu mën a indi si seen gox priorité la si ñoom donc ñun tey suñu kuréel li mu mën a def mooy accompagner leen xool ndëgëm problème boobu mën nañ ko jël def ko benn projet bu mag boo xamante ni nañ ci mën a boole ville de Dakar ville de Pikine ville de Guédiawaye yokk ci ville de Rufisque ak département de Keur ñu koy jaajëfal moom euh, naa ci tataan xibaar yu ni mel mbokk yegg si nañu ci euh, ñaareelu pàccu xibaar yi ba ci njëkk xibaaru bitim réew lay doon ñu ànd ci ak Ibrahima Khalil Jeme. xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca réewum Tchad fi nga xamante ne opposant bi di Yaya Diallo faat nañu ko ci benn attaque bi nga xamante ne moom la ñu amaloon ci agence de sécurité foofe ca N'Djamena buñ sukkandikoo ci procureur d'état attaque biile mi nga xamante ne jëmale nañ ko ci parti socialiste sans frontières yi nga xamante Diallo moo ko dirigé wone na ni am na tension foofe ci Tchad gannaaw ba ñuy jege ci élection njiitu réew yi nga xamante réewum Tchad moom Diallo nekk cousin ci président actuel foofe ca Tchad waaye it mu nekk candidat ci élection njiitu réew yooyu le faat nañu ko waaye bu saa si tembe anam bi nga xamante ne moom lañ ko faatee ba léegi desee na leer ca Éthiopie foofe premier ministre bi Abiy Ahmed mi nga xamante ne dafa amaloon ab tukki nemmeeku foofe ca Nairobi dafa yëkkati ay kaddu ni réewum Éthiopie ak réewum Kenya dinañu boole seeni doole ngir rek ñu mën a seeni relation relation pacifique waaye it ñu taxawandoor ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la réew yooyu am waaye ñu jàpp ni réewum Éthiopie am na accord bi nga xamante ne xaatim nañu ko digganteem ak Somalie ci benn fan ci weeru janvier bi ñu génne accord boobule dafa jural ay tension ci digganteem ak Somaliland mi nga xamante ne jàpp nañu ni ba tey ci territoire éthiopien la nekk li nga xamante ne Éthiopie am na ko ak Kenya mën nañ ci sukkandiku comme modèle ngir mën a libérer Afrique ci wàllum politique waaye it économie ca réewum Russie foofe nag ci ab discours bi nga xamante ne moom la ñu amaloon ci auditoire de législateurs yi waaye it ay hauts fonctionnaires la président russe Vladimir Poutine daal di annoncé que ni réewum russe taxaw na tem ngir engagé ab dialogue digganteem ak États-Unis ci ay question de stabilité stratégique donte am na ay rëkk-rëkk yi nga xamante ne ñoo doxoon seen diggante waaye dirigeants américaine yi ak Vladimir Poutine wax nañu ni jamono ji ñu ngi dox ay tànk jàmm mën a waxtaan nan la ñuy def ba jàmm mën a dellu si seeni diggante xibaaru bitim réew yi ñu jeexale ko ak mission de maintien de la paix des nations unies mi lañu amaloon foofe ca kongo dafa daal di tëj première basam foofe ci Kivu gannaaw ñaar fukki at ak juróom mbam fa nekkee cérémonie jokkalante lenge digganteem ak polis congolais amal nañu ko foofe Kamaniola loole wone na ni ba léegi ñu ngi dox tànk jàmm ngir mun a indi stabilité foofe ci république démocratique bu kongo ci wàllum xeex bi nga xamante ne moom lañuy ñuy wéyal foofee ba tax na lu tollu téeméer ak ñaar fukki groupe armé yi nga xamante ne ñoom ñooy xeex foofe belu lu toll ay million doomu aadama daal di déplacé wu ngir dem wutali ay yeneen dëkk. jërëjëf Ibrahima Khalil Jemme kon mbokk yegsi nañu ci ponk bu mujj bi xibaaru tàggat yaram. benn ponk lay doon wax ci Jeux africains bi am ca diwaanu Accra atub 2024 équipe nationale bu Sénégal u maanaam ñi nga xamante ne seen at daanaka dafa yées ñaar fukk ñoom nag daanaka jamono ji ñu war a bokk ci boobule compétition buy amee ca diwaanu gana ci at mi ñu ne mën nañoo génnee seen xel ci seen naataango bi di Amara Diouf ndaxte. benn jafe-jafe képp la am muy at ya nee nañu dafa dafa ndaw ndaxte xale la mu ngi juddu atub 2008 te jàpp nañu ne ñi war a bokk ci boobu la jogante il faut que ñu am at yoo xamante ne bii wala ñu juddu atub 2020 2007 lu ko yées rek daanaka doo ci mën a bokk moom nag 2008 la judd loolu nag euh, ñu gis ni du ci mën a bokk ndaxte kadde la maanaam dafa nekk koo xamante ne bi xale la te itam war na koo xaar itam benn at ngir mën a bokk ci yooyu lay jongante jamono ji nag mënees nañoo wax ni euh, ci euh, list ba daal kiñ ko bëgg a remplacer mooy Ibrahima Dian di ñu koy wax poleta moom nag mu ngi fare ci AS Pikine moom nag la ñu woo ngir mu doon ab renfort mbokk yi loolee moo nekkoon xibaaru tàggat yaram yi nekkoon itam xibaar yi ci waxtu wi ci guddi yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam ña sa jàppoon ba mu yemb kii di Mouhamed Thiam Alioune Badara Sakho wante itam euh, Pierre euh, Pierre moom itam daanaka nekkoon na ca xarala gi mbokk yee kon xibaar yi daañu dikkaat 21h ci kàllaamay nasaraan ak Fatima Koulibaly jërë ngeen jaf